ndax defe naa ne mouvement bi fi nekk mouvement jàmmal ak salaam kon loolu mën nañ koo nuyoo sëñ Xaadim ñu ngi lay nuyu bu baax sa nuyu bi ñu lay nuyu nag dañ koy teg ci mbooleem ku nekk ci jaxaay ku fi dëkk nuyoo boobu nag nga tegal ñu ko ci loxol imam ndax martaba bi gën a rëy ci lislaam mooy martabatul imam te yonent dafa wax ni al ulama warasatul anbiya kon imam ñu ngi la jox sa wàccuwaay bu baax di nuyu délégué de délégué de quartier délégué bii nga xam ni moo jiite mboolem délégué de quartier yi fi nekk yëpp muy sëñ Ndiaye di borom wax ju rafet maîtrise dëkk bi lool ci anam yu bari waaye yar beeg teggin bi ak xam-xam bi rafet lool. mu mel ni bon ñu ngi nuyu président Boubacar sëñ Khadim bi ñu ñëw ci délégation bi ñu ànd ak président monsieur Boubacar Camara ànd ak sëriñ maam Cheikh Fall moom sëñ Cheikh Fall di doomi sëñ Aline Fall Mbawar di doomi maam Cheikh Ibra Fall Babul Mouridine waaye it sëñ maam Cheikh Fall mii waajuram wu jigéen di soxna Ndiaye Fall soxna Ndiaye Fall sëñ Mortala Fall moo ko meññ sëñ Mortala Fall maam Cheikh Ibra Fall ñëw ànd ak nag monsieur Ibrahima Ngom moom it muy secrétaire ak soxna Awa Sow waaye président ànd ak soxna Fatimatu Mbay mi nga xam ni moom moo yor wàllu communication bi nga xamante ne moom la président yor mu organe de presse yi fi nekk yëpp di jël seen nuyoo di ko teg ci loxol Massar bu Touba TV nga xam ne moom sama xarit la sama lépp la moom it ñu ànd ak ñi nga xamante ne ñooy délégation bi yëpp man mii di wax a yéen tudd Abdou Lahad Samb maa ngi leen di leeral tuuti ku doon ànd ak Ablaye Wade te gisatoo ko Karim moom du ñëw ndax bu ñëwee sonal Macky sal kon nag kii nga xam ni monsieur Boubacar Camara dafa jot tuuti ñu leeral leen tuuti ci moom inspecteur général d'état la woon retraitam jotul lan mooy inspecteur général d'état mooy lu xew ci dëkk bi ci Sénégal balaa ñëw tëdd dinañ ko ànd ci yow nga jàngat ko toog ak ni ko lii la ak lii ak lii ak lii. président laaj la sa xalaat lan nga ci war a trouver lan nga ci war a def ak nan la ñu war a def kon mboolem renseignement bu war a am ci dëkk bi amul kenn ku ko war a gën a xam wala ku ko ëppale fii ñu nekk di plan jaxaay ku baax kii dafa wax sànq ne bokk nañ ñi nga xam ne loxo yi ci liggéey liggéey bii ci loxoom la jaar waaye moom mii président moo ko xalaat loo mu xalaat lii nga xam ne mooy plan jaxaay xalaatu plan jaxaay ni mu ko xalaatee woon suñ ko defee woon noonu tey dépassé na fii ndax ab jullit la taalibe la murid saadiq la sëñ Bamba la yaakaar loolu doyul sëkk mu nekkoon Sococim biñ nekk ci jafe-jafe yu métti mu ñëw rek redressé ko taxawal ko taxawal bu rafet. loolu doyul douane bii nga xamante ne mooy douane senegal moo nekkoon directeur douane jël douane jële ko ci ay koom-koom yu suufi yóbbu ko ci koom-koom yu kawe ba koom-koomu Sénégal bu tollee fii grace a monsieur le président Boubacar Camara loolu doyul ci àdduna bi yëpp bari na dëkk yi am ay jafe-jafe ci xam-xam ak xalaat ak nu réew suñ ci jaaxlee moom mii la ñu woo mu ñëw décanter seen situation ba seen réew mën a jëm ca kanam waaye ku mel noonu ku ko am noo ko war a def. dañ cee war a téye mooy ci mu gis nag bu ko neexoon mu toog ci biir këram waaye mu gis Macky Sall nim ñu bund xatalee Macky Sall nim ñu sonalee Macky Sall nim ñu sonalee ñun ñëpp Macky Sall bu gën a woon Abdoulaye Wade ak lim ko defal du ko defal lim ko defal jóge fii mu jël kërim tëj ci biir kaso bi loolu doyul. ñu ne déet mu jël Cheikh Béthio Thioune dugal ci biir kaso bi loolu doyul comme xam ngay kilifa toog juróom-ñaari at jël 322 personnes tëj leen ci biir kaso bi kooku toogaatee yeneen juróom at fu réew mi jëm réew maa ngi ñëpp a ngi sonn ñëpp a ngi xiif ñëpp a ngi mar ñëpp a ngi jaaxle kenn ku nekk nag am nga part de responsabilité réew mi kon nag bu ñu demee ba réew mi toll fii ñu gis am na situation koo xam ni xalaatam. ak xelam ak xam-xamam ak njàngam ak xam fan la ñuy tibbeem koom ak fan lañ koy jëlee ak na la ñuy développé réew Macky sàll woo ko rek jox ko dik ko ay poste de responsabilité yu bari ngir mu ñëw ànd moom mu bañ ndax Macky Sall dafa tële munut ndax du ànd ak moom waaye doy na sëkk li waral loolu lépp nag ñu xool muy taalib Serigne Moustapha Mbacke moom Serigne Saliou moom mii daan toog di xéewlandoog Serigne Saliou doomi Serigne Touba Dia nga xam ne bàyyi ma wax ni wabile ilma sahiha wal amal as-salih allazi yukamilu amal sëñ Saliou Mbacké doomi sëñ Tuubaa sëñ Saliou daan ko woo di waxtaan ak moom bu xéwla ba noppi jokk mu xéwlu ñuy diisoo Serigne Saliou dem moo ngooy ci Serigne Moustapha moom Serigne Saliou Macky Sall lim ñu def ñun ñun jullit war nañ koo seetaat war nañ koo xoolaat ndax ku fi falu jullit yee nekk chrétien yaa fi nekk ak ñeneen ak ñeneen waaye di am jom am ngor am diine bëgg lu baax Macky Sall na kenn xamul fu mu jëmee réew mi léegi nag ndax kenn ku nekk da ngay toog di seetaan yonent mi alayhi salaatu wasalaam nee na hubbul watan minal iman bëgg sa réew ci ngëm yàlla la bokk réew mi nag bu doon takk ñun ñi fi toog duñ daw duñ dem fenn président yi fi jaar yëpp muy Senghor ba mu ba mu fi jógee daa dem mook soxnaam ñu dem bitim réew Abdou Diouf ba mu fi jógee daa dem moog soxnaam bu mu dem bitim réew Macky Sall mi bu fi jógee bitim réew la jëm kon nag ñii fi nekk dañ xalaataat suñu bopp bu baax a baax sëñ Xaadim ñu ngi lay sant di la gërëm xam nañu yow dëkk bu doon takk doo daw ndax sa maam fii la génnoon ne xusuuri xëllat wa ahlu anni tafaraxat limat ila zi anumadi yu xasiru xurur wara xara nasara bi kaydi wa zannal zununa wa zununu xururu ku sopp sëñ Tuubaa jugal taxaw ci kaw toogal looloo sëñ Xaadim looloo lool sëñ Xaadim boo ñëwee jaxaay donte yàggoo fii di nga trouver solution waaw sëñ Xaadim jërëjëf mat na ko sëñ Xaadim loola tax boo ñëwee fii di nga trouver solution solution bi nag mooy nga ànd sa mbokk mu baax mii nga xam ne li ñor moo ko ñor muy mbaax yant bi ne albirru laa yëpp laa mbaax drop mukk ñu gis kii nga xam ne mooy monsieur Boubacar am ci moom yaakaar ci xam-xamam ak yaram ak yiwam ak bëggam lu baax sëñ bi yéen a ko waxandoo ne ngeen maire bi fi nekk bu ngeen ko gisoon du ngeen ko xam bi ngeen fi nekkee ba léegi amul benn autorité administrative bu ñëw dugg ci biir jumaa ji wala jàkk ji ndax bu fi doon dugg jàkk ji ne mu mel dinañ ko soppi te kat wanal masaajida laahi falaa tad'uu ma'a llaahi ahadaa président réew maa lay xaar salaamaaleykum